mbokk yi ginnaaw bi sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte ak kontante ci ñëwaat ak yéen ci tooli alquranul karim ci jardin alquranul karim ci leeri alquranul karim ci ruuxuk alquranul karim téere yàlla bii nga xamante ni nii téere la boo xamante ni ku ko jàpp bàyyi woo ko àjjana la la jëme mais képp ku ko dummóoyu wan ko ginnaaw soo moytuwul fa nga xamante ne nii fa ngay daanu ji moom moo di safara mbokk yi alquranul karim mooy téere bi nga xamante ne nii xéewal la ci xéewale yàlla te loolu incha allahu tabaraka wa ci suñu tafsir yi nga xamante ne nii moom la ñu war a euh, continuer nii dina ci leer ci saar yi nga xamante ne nii moom la ñu jël mbokk yi gis nga téere alquran gi mooy téere bi nga xamante ni nii comme ni ma leen ko waxee xéewal la alquranul karim xéewal la wa ma anzalna alayka alkitaba illa li na lilladina ixtalafu fihi hudan wa rahmatan li qawmi yuminuun yàlla subhanahu wa taala nee na alquran maa leen ko baaxe maa leen ko jox mu nekk ab xéewal xéewal goo xamante ne nii da ngeen jàpp ci mu daal di leen di leeralal lépp loo xamante ni dafa lëndëmoon mbokk yi alquranul karim mooy téere bi nga xamante ne nii dafay tege ci aw yoon inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yàlla subhaanahu wa taala nee na alqur'an daal mooy téere bi fi nekk mooy téere boo xamante ne nii téere njub njubla téere la boo xamante ne nii leeral nañu lépp wa kulla shay'in fassalnaahu tafsila yàlla subhaanahu wa taala nee na amul lu ma bàyyi lépp laa leeral mbokk yi alquraanul karim ruux la wax naa ko sànq si signal benn wax gi lan mooy wane ni ruux la yàlla def ko tuddee ruux te ñun doomu aadama liñ xam ci ruux mooy li nekk suñu yaram muy dundal suñu jëmm ji suñu yàpp yeeg suñu deret jii lii koy dundal muy ak ruux nga xamante ne nii bis bu dañoon rek doomu aadama daal di faatu ñu daal ni ruux gi dog na alquranul karim moom mooy sa ruuxu dund dund ngay dund ci àdduna soo bëggee mu neex soo bëggee mu jag so bëggee nga nekk ci li yàlla bëgg ci li yonent bi sala sallam bëgg il faut nga jàpp ci li nga xamante ne nii moom alquranul karim yàlla subhanahu wa taala nee na wa kadalika awxayna ilayka ruuxam min amrina waaw kay yàlla nee na yonent bi sa salaam ñun ñoo la jox ruux te moom moo alquranul karim moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bu wér tànn xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu yonent bi saa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki jàng alqur'anul karim ba pare di ko jàngale mbokk yi damaa taxaw ci xadis bi di ko di ko di ko càmbar ma gis ne yonent bi saa sallam xadis bi képp kuy waxate ne yonent bi gën ci nit ñi bu la neexee nga jëlaale xadis bi waaw parce que yonent bi salaa salaam bu ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu te moom yonent bi salaa salaam moo ñu jàngal alqur'an kon moom mooy moom mooy xayru naasi mooy ki gën ci nit ñi parce que moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu njëkk a jàngal alquranu karim moo ko jàngal saxaaba yi saxaaba yi daf koy jàngal seeni doom ñëw jàngal ko seen i sët noonu naka noonu ba nga xamante ni tey ji jot nañ ci kon yàlla subhanahu wa taala wàcce gi mu wàcce alquranul karim ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent bi sa jàngal ko saxaaba yi saxaaba yi jàngalewaat ko ñu koy jàngalante di ko jàngalante ba ñu jot ci tey sàmm googee yàlla subhanahu wa taala moom la waxoon ni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafizuun ñun ñoo wàcce alquraanu karim te dinañ ko sàmmal suñu bopp dinañ ko teel suñu bopp mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxat ci beneen xadis daan ni alquranu shafiun mushaffa wa maaxilun musaddaq man jacalahu amaamahu qaadahu ila jannah, wa man jacalahu xalfa dhahrihi saaqahu ila annar yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee al-qur'an daal bu yowal qiyaamee bu jam yépp teewee moom alquranul karim mooy ñëw daa di ñaan yàlla ndigal ni ko dama bëgg nga may maram ay ni ko bismillah mu commencé ci biir jaay ñi doon liggéeyal alxuraanu karim ñi ko doon doxal guddeeg bëccëg subaak ngoon ñi ko doon jàngale ñi ko doon jàng alxuraan di leen seppi ci biir mbooloo yi daan leen dugal fa nga xamante ne nii moom moo di àjjana moom la yent bi ni shafiun mushaffa wa maaxilun musaddaq téere la boo xamante ne nii bu yemal qiyaamee day def seede ci jaam alxuraanu karim mooy taxaw ci pénc ma daan ni yàlla diw mii doomu diw ak diw ba ñu nekkee àdduna daf ma daan jàng guddeeg bëccëg subaak ngoon daf ma daan firi dafa ma daan déglu bu daan nekk ci oto yi man lay déglu bu daan liggéey man lay déglu fu mu daan dem ci yoon yi man lay déglu moom alquraanul karim mooy seede daan ni yàlla gis nga jàmm bi daa ubbi woon ay groupe bi whatsapp masalan ngir jàngale alquranu karim daa ubbi woon ab émission boo xam te ne daf koo def ngir lan ngir jàngale alquranu karim dafa jëloon temps wam jëpp daal koy jox alquranu karim moom la yonent bi naan wa maaxilun musaddaq waaye xoolal li gën a yéeme yonent bi saa sallam wax ci xadis bi mu daan ne man jaalahu amaamahu qaadahu ila aljanna yonent bi saa sallam ne ne ku jël alquran ku jël alquran def ko mu nekk sa git àjjana la la jëme dalay génne ba biir àjjana doo wàcc yoon yu mukk waaye nag nee na képp koo xamante ne nii bàyyi na fi alquraanu karim jël ko sànni ko si ginnaaw ah alquran daal lay seetaan daal lay bàyyi su ko defee nga daal di torox daal di tàbbi fi nga xamante ne nii moom moo di safara wal iyaadu billah wa man jaalahu xalfa dahrihi saaqahu ila nnaar mbokk yi téere boobu la ñëwaat pour jàngat ko waaye nag ci anam bu bees ci anam bu doy waar allah tabaraka wa taala wallahi alazim mbokk yi mënuñoo gëm yàlla mukk fekk xamuñu ko te yàlla mënuñu koo xam lu lul nii dañoo jaar fi mu ñu wax pour ñu xam ko te mu nekk lu simple mais doomu aadama yi ñoo ko fi bàyyi dem di seeti la leen yàlla mënuñu koo jaamu fekk xamuñu ko te pour ñu xam ko il faut mu am fu ñu jaar te foofee ñu war a jaar pour xam yàlla yàlla war nañu ko ci alquran te lu simple la yàlla nee na bu ngeen ma bëggee xam xool leen li ma bind wa fii an fi anfusikum afala tubsirun yàlla nee na yéen nit ñi xool leen seen jëmm yi bu ngeen ko xoolee da ngeen xam ne man yàlla kenn laa nañ dem ci jëmm yi mbokk yi ba nga juddoo ba léegi yaa ngi watu sa kawar gi fan lay jógee boo daggoon sa bopp léegi ah doo gis kawar ci biir te soo wotoo mu daal di saxaat sa we fi muy sax soo ko daggoon léegi dootoo gisat ay we te moo ne yaa ngi dagg sa we muy màgg wa kazalika sa jëmm ji xalaatal démb ba nga xamante ne ni nekkoo woon dara existé woo woon waaw hal ataa ala al insani xiinun min addahri lam yakun shay'an madkura waaw inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi fa jaalnahu samian basira yàlla subhanahu wa taala ne doomu aadama amoon na ay temps nekkuloon dara existé wuloon mu dem ba nekk toqantalu ndox toqantalu maniyu di màgg di màgg xoolal doomu aadama nekk ni mu nekkee woon ci biiru yaayam dem ba juddu gane àdduna yaa ngi dégg mënta dox mënta sax tok du lay def yaay may yëkëti di teural mu dem ba commencer tok commencer ram commencer dox commencer xamé wa kër gi dem ba xamé wa koñ bi commencer capter di japp loko wax mu xam ko so ne ko demal mu dem bo ne ko dikkel mu dik commencer xam papam xam yaayam xam turi ku wa kër gi yépp day xolal xolal keman gi yag def ci xalé surtout xalé xalé xama xam ba commencer xam dalli wa kër gi ku summi dal mu xamni dal wi diwo ko mom waaw xàmmee lépp lay xàmmee loolu kéemaan la goo xamante ne ni yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo ko def moom moo ko def ci suñ jëmm yi moo tax mu ne wa fi anfusikum afalaa tubsiruun yàlla nee na bu ñu ko bëggee xamit kazalika nañu xool ci kawlu bi xoolal asamaan si wallaahi barki démb dégg naa benn euh, théâtre kat ndeysaan wax lu am solo mu daan ni ñun dara mëntu ñoo yéem parce que yooyu yéemu ba pare lan moo ñu yéem asamaan si moo ñu yéem ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi koy gis xoolal niir yi daw nga yeewu rek jékki-jékki rek adduna bi commencé leer di leer di leer ba ni jëy leer nañ jant bi génn commencé daw ay ati ati at mosoo leen dégg fu ñu ne jant bi daa paan dañ koy réparé ji ay ati ati at mosoo leen dégg fu ñu ne jant bi daa am fu mu daanu yaa ngi dégg wala weer wi daa fu mu daanu wala weeru ren wi moom deewut déedéet yàlla subhanahu wa taala nee na weer wi jant bi benn bu ci nekk maa ko wutal ay yoon ñu ciy daw ñoom ñaar benn jiitu benn topp ci ginnaawam te xoolal nag. yàlla subhanahu wa taala nee na du ñu musa laalante ñoom yàlla ne maa leen may ay biddiw bu ngeen di tukki par yenn saa yi loolu ñi xam-xam-xam biddiw xam nañ li may wax di nga nekk ci désert bi réer dootoo xamante foo jaar biddiw yi ñoo lay wan yoon yi nga daal di xam ni fii laa war a jaar mbaa nga nekk biir géej nga réer xamatoo fu tefes gi féete yàlla subhanahu wa taala nee na may naa mool yi lu ñu xamee tefes gi fii la féete te mën nañ koo xamee ci li nga xamante ni moom moo di ci euh, ci ci ci biddiw yi wa bin najmi hum yahtadun yàlla subhanahu wa taala nee na maa leen may ay biddiw yoo xamante ne nii ginnaaw bi mu nekkee ziina taar ci asamaan si waaye am na ñoo xamante ne nii ci la sukkandiku ba xam fu ñu war a dem ak foo xamante ne nii waruñu faa dem mbokk yi xoolal suuf xoolal li mu yaatoo xoolal yàlla subhanahu wa taala li mu ci def lépp montagne yi moo téye suuf si yàlla wax na ko ci alquran wa alqa fil ard rawasiya an tamira bikum mu ci saar wi nga xamante ni incha allah rabbi ci lañ bëgg a ñëw yàlla subhanahu wa taala nee na maa leen may géej leen ci ay jën waxuma la ay jën kase mais dem ba defal leen ci ay wurus ay per yoo xamante ne da ngeen koy génne defar ko ba mu jekk seen soxna yi takk ko ngeen di kontaan bu ko defee célibataire ñoom bokkuñu allahu akbar xoolal loolu yàlla subhanahu wa taala nee na man maa leen ko may waaw waaw wa huwa alladi saxara al bahra li taakulu lax man طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها wa taral fulka mawaaxira fii wal tabtaxu min fadli wala allakum tashkurun yàlla nee na maa leen may ay bateau muy départ Italie départ Espagne départ fu nekk Égypte fu nekk bateau départ fa daa di ñëw poorum Ndakaaru bii bagage yi ngeen soxla woon yépp mu daa di ñëw kii yu ay bëggoon ay téere mu ñëw ki doon xaar ay frigo mu ñëw parce que yomb fi woon yàlla ne man maa leen ko yombal demalante gi ak dikkalante gi wa taral fulka mawaxira fii wala tabtaxu min fadli wala allakum tashkurun yooyu yëpp ay xéewal la biir géej gi boo duggaatee fekkaat fi soo jën wu nekk yàlla subhanahu wa taala nee na yooyee moom moo ñu ko may kon mbokk yi yàlla subhanahu wa bu ñu ko bëggee xam yàlla bu buñ ko bëggee xam dañuy xool ci li mu bind sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu alxaq yàlla leen dinaa leen wan ci li ma bind ba ngeen xam ni man yàlla subhanahu wa taala maa fi nekk looloo waral mbokk yi insha allahu tabaraka wa taala ñu daal di jël wenn saar woo xamante ne nii saar wu doy war la saar wu yéeme saar wu bari ay xéewal te incha allah rabbi ci suñu waxtaan wii di ñëw dinañ ci ñëw ak yéen ci ay leeral ci saar bi nga xamante ne nii moom lañ leen jëlal kon mbokk yi bu leen xaar kenn di leen ko wax toog leen ngeen xaar incha allah tabaraka wa taala ci beneen émission boo xamante ne nii dinañ ñëw ak yéen ci biir alquranu karim tànnal leen aw saar saar wu doy waar saar wu yéeme saar woo xamante ne nii incha allah rabbi boo ko dégloo ba pare sam xel mii dina dina ubbeeku sa bët yi dina gis say nopp dina dégg waxuma dégg yi nga daan dégg de léegi dangay dégg dégg xam ne lii mooy dëgg dañ lay woon dégg nga gis ko xam ne lii mooy dëgg sa xel mii di xalaat parce que yàlla dafa jël stratégie bu garaw ci saar yu ma leen di wax nii pour yee ci xeli nit ñi pour teg ci nit ñi ci aw yoon ba nga xamante ne dañu xam ne yàlla moo fi nekk yonent bi salaa salaam moo fi nekk islam moo fi nekk yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp jéggal suñu bàkkaar lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëgg ngeen jéggal ñu ko di jaajëfal ñu àndaloon ci liggéey bi wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ci alquran def leen ko lekk def ko naan ma nga bawoo ca asamaan le Coran la solution ngeen ci ànd ak oustaz Mor Talla Ndiaye